te nee nañu al imaanu fi qalbin mu'min ka sajaratin laha sabaatul ahsaan ngëm yàlla ci xolu jullit bi dafa mel ni garab goo xamante ne jëmbat nañ ko mu jebbi jóg ca kaw am juróom-ñaari baraas banqaas bu ci nekk nag am meññet meññet gu fay bàyyeekoo nekk mooy jariñ doomu aadama bi am na xusnu yantaxi ila yaddayhi wa samaratuhu itaau sadaqa am na bànqaas bu bàyyee ko ci loxol doomu aadama tabe bu dugg loo bëgg mënoo ko am mooy tabe banqaas boobu la ñuy wax tabe meññet bi cay génn mooy alal ji ngay yëkkati ta moom ko te génnee ko te sa xol yëgu ko alimaanu imaanu billaahi daal di dugg ca loxo ya am beneen baraas boo xamante ni xusnu yantaxi ila rijlayhi wa mas yu ilal jamaa meññet bi cay génnee mooy dox bi ngay dox di dem jàkk ja di julli julli juróom yow mi sopp kursu seex meññantal bi nekk ci tànk yi li koy génne mooy di dox ca jàkk ja di julli julli juróom di ñëw ci xadaraat yu ne mel di ko bokk ak jullit yi li tax seexu na tiijaani tëb tëb rek indiwul masjid mu indi zawaaya am na lu tax parce ca azal bi yàlla di bind doomu aadama ñeenti koñi àdduna la tubbee suuf sa muy miin min zawaaya dunia seex tubbee ci ay palaasam def ko zawaaya meññet boobu génnee ci tànk nekk doomu aadama bi war caa dox lu baax muy meññetu tànk loo dégg ci lu bon nga war caa mën a dox ba mu sotti rek nga jóg gaaw meññet boobu loolu ci la bokk dox mbokk meññet boobu loolu ci la bokk di dem jàkk ja di julli julli juróom ca jàkk ja dox boobu ci la bokk sang bi nag mës na ma cee yee dañoo euh, euh, déggantewul euh, daf ma woo ci téléphone bi yàlla atte jotuma fekk maa ngi ca jàkk ja bi ma ñëwee mu ne ma bu beneen yoonee booy julli ji nanga ko fay kooku kilifa koy dimbalee nit def na la ko booy julli ji nanga ko fay parce que xam nga lu tax njàngat bi ma ci am mooy àdduna la waruta dox diggante yook yàlla loolu lañuy ñuy doyee kilifa loolu lañuy ñuy doyee kilifa xam naa ni ëllëg yowmal qiyaam it ñi ñuy topp ci kanamu yàlla yeewuñu seeni taalibe moom du ci bokk loolu sañ naa ko kitaabu ci téere bu dee ñoo ngee dégg li muy wax yee nañu ci côté bu ne nekk baraas boo laal ci àdduna am boo xamante ni xusnu yantaqi ila batnihi moom ca baraas ya la bokk ila batnihi wa samaratuhu xalaal wa tarkul xaraam mooy meññet boobu feeg yaa ngi lekk lu lewut ñaan du gaaw a nangu faaw nga ràññee li ngay lekk lan la mu jàngal ñu ko fii ci bërëb bi fal yanduril insaan ila taamihi faaw doomu aadama di xool li muy lekk lan la yëguloo ni course boo koy laal sax te bàyyeekoo ci lu mel ni ceeb wala leneen lu bokkut ak loola pat bi des ci sa gémmiñ nga laal ko de du dox danga war a borosu wala nga soccu ba set wecc door caa jublu lan moo tax julli ji boo cay dem ñu sant la loola mais yi xew léegi moom kenn gisu ko ñu taxaw ci sàpp ngay soccu rek te ñoo ngi liqaam ngay soccu rek imaam ne allahu akbar nga tardé lu yàgg door a jël sa toflit bi raxasee ko sa gémmiñ war na ko yëfu salte yooyu door a kàbbaar yooyoo xew ci jàkk <laughs> gaa yi nee nañu noonu lañuy def nee na sunna loolu meññentet boobu moo daanu ci biiru doomu aadama li muy soxla mooy aklul xalaal wa tarkul xaraam waaw mutasaabihaat yi sax danga ko war a wottu waaw loo gis mu xaw lënt rek ñu ne baax na wala baaxul bàyyil bul laan yow daal wutal yi nga xamante ni baax na tedd na nga teg ci sa tànk mu amaat boo xamante ni xusnu yantaqi ilaa aynayhi wa samaraatuhu nazru nazru ilal ajtaab mooy xool bi ngay xool lu la lew mais but yi du fu ne nga ko war a sànni lan la yàlla tàggee sayyiduna muhammad keroog ba mu demee laylatul isra wal mi'raj ma daqa al basaru wa ma taxa takat laqad ra'a min ayati rabbihi kubra ah yow mi demul foofa afa tumaarunahu ala ma yara yàlla loolu la ko taggee ci xadratul ilahi bi mu fa àggee moom sayyiduna muhammad siggiwul yokkamtiwul yuqeeluwul fa mu taxaw la toog fa mu toog la toog ne sadd ak toogaayam bu jekk ba démb am na waa ju ma waa ju wax wax ju am solo joo xamante ni fekk muy tudd sang bi eh, sëriñ boobu muy tudd sunu sang bu tedd ba sëriñ maa liggéey mu ne benn waay def ko fekk mu toog rek waa ji song sëriñ maa liggéey ne ko sëñ bi waxal gaaw gaaw gaaw lan nga bëgg ci wàllu yàlla ma yóbbu la ci yàlla léegi <laughs> ma ne waa ji maa du sëriñ maa liggéey bu Cees mu ne ma waaw moom la ma ne ko sang bi ci moom laa ko xamee kooku day ku yéema woon mu ne déglul li muy tontu waa ji waa ji ne ko gaawal gaaw wax li nga bëgg ma yóbbu la ci yàlla sëriñ maa liggéey ne ko ah sànq ba léegi yaa ngi koy wax faalewu ma la war ngaa xam ne am na lu nekk ci man xanaa <laughs> mu ne ko dem bi yomb na dem dem te kenn dàqu la laa bëgg <laughs> dem ba àgg ci yàlla am ay adab ba kenn du la dàq ci xadaratul ilaahi boobu laa bëgg waaw lan moo tax Seydul Xaaji Malik tëpp rek ne fa ma ziltu waaqifan bayna yadaya mawlaaya ànd ak ñaata adab zalilan xaqiran mustaxiisan li siddati hmm? te dafa yëglu dafa yëglu ci buntu yàlla foofa mooy baytul wilaaya lan moo tax Seyduna Alin jekki-jekki rek yonente bi gis saxaaba yi yépp ne ko ànd naa baytul ilma wa aliyun baabuha baabul wilaaya moo tax mu jur Xuseynu Xasan yàlla junj ko ci alquran denc ko yaxruju juddoo nañu min xumaa ci ñoom ñaar Fatima ak Alin lu lu Xasan wal Marjaan ak Xuseynu ñooñu ñoom me Xasan meññ see seex Sayidi Ahmada Tijaani seex ñëw nekk euh, anna baytul ilma bele wa aliyun baabuha seex am baytul wilaayati misbaahu zalaami wilaaya fa la bàyyee néeg la boo xamante ni ma tënk tëj néeg la boo xamante ni wilaayaa ngi ci biir ci waxin buñ la koy misaal néeg ba bunt bi dañ ko tëj kamoot ga ca biir nag lañu ñu tëj wilaaya caabi ba ñu sànni ko mu réer ku ko gis tëjji yaa moom te gis ko tëjji nag yitte du la ko may yàlla lay neexalee loola teg ko ci sa loxo yàllaay ki koy seet ba gis ko hmm? laa yaqtum sirra illa man lahu saraf asirru inda kiraami naasi maktuumu asirru fi baytin lahu xalaqun xalaqun ba noppi dallat mafaatixahu wal baabu marduumu seex liggéeyal yàlla ba gis caabi ga àgg ca bunt ba moom seexuna tiijaani ne ko dagaj ca bunt ba tijji néeg ba lëndëm ndax sa liggéey moo war a leeral néeg ba seex doon fa misbaahu zalaami làmpi lëndëm ya néeg ba leer naññ mu gis benn caabi ci suuf for ko tijjee ko kamoot gi yenu xakmul wilaaya ni ko sang bi waxee léegi kat mi ya moom bañ na ba turu seex biñ koy tas alif ga lañ jël ñu ne al maktuumu maktuumu laa yaarifuhu illa allahu wa rasulahu mu jeex miim nga ñu jël ko def ko miftaaxul wilaayatu suxra fi amaami sayiduna muhammadin deel eh, eh, beneen beneen xaa gi xaa gi ñu jël ko def ko xima ximan tama saq bi tariqati ya ñu jël del gi def ko daawatu safaatu suxra inda yowmi alqiyaamati fi amaami sayidul wujud sayidil awwalina noonu lañu tasee turu seex boo àggee noonu lañu ñu tasaatee turu sayiduna muhammad seexu na tijaani nag ba mu jëlee wilaaya ba dem seex sayidul xaaji malik si liggéeyal na yàlla ba àgg ci buntu wilaaya boobu ñu ne ko seex yanu na ko ba mu àggee yëglu na liggéeyal na yàlla ba àgg ca porte ba mu ne dont duma fa fekk dara naa fekk ñu jël ko naa def effort ba àgg fa ba mu àggee taxaw ca bunt ba yëglu waaw rabbun tabaarak porte ba ne kàkk rek mu ne aw rabbun tahaddasa port bu ne kàkk rek mu ne doyluwuma tabaraka taxaddasa ulaa moo leen gën a kawe aw rabbun taala uluwan rabbi yàlla door a yëglu ca bunt ba ne ki wax wax ji kan la Seydi Haaji Malik ne du kenn nekk dun la nekk zalilun faqirun haasiun wajilun zu jazail aasifun yallaahu yallaahu waaw du kenn nekk ab dun la rek waaw ni mu mel ba muy wuti ji yàlla ba mu ko amee ba noppi noonu la continuer di ko mel looloo yéeme ci wàllu yi di wut yàlla ba am ko ni nga meloon ba nga koy wut nga melaat noona boo ko bi nga ko amee looloo jafe am na ñu àgg ba àgg ñu jox leen ñu dellu bew moo tax Seydi Aji Malik ne buñ ma jox sax li ma am na ñu denc ba ëllëg yàlla recevoir na ko pour jox ko ko Maodo ne bew mën na maa dab ci diggante bi dencal ba ëllëg te bu ma ko jox direct xam naa ni mooy gën a neex yow yàlla waaye joxal ma ko Sayyiduna Muhammad mu jottali ma ko wajaal xilaadata jiidi fi asaabi i man anzalta alayhi ayatin karimati waaw mu ne alquran ci moom la jaar ba ma jaar ci moom àgg ci yow fa yaa xayyu yaa xayyumu yallaahu rabbana bàyyiwuma na bi ilayka tawassalna bi xayril bariyati waaw ci moom laa jaar ba àgg kon billaahi teg ko ci loxo mu jottali ma ko ma bañ koo war Maodo Gore bi mu déddoo bàyyi fi sëriñ Babacar borom bu ne kaara ba fa baayam liggéeyoon ba àgg ca bunt ba sëñ Babacar àgg na fa ba mu àggee yëglu ñu ne ko kokkan la mu ne ah ki ñëwoon jaam la te moo ma jur bu ma nee jaam la rek ma xàtti ma wax lu ëpp kon haza ubayduka indal baabi yaqra'uhu wa laysa yaalamu illa anta man haahu mu ne ki ñëwoon jaam la moo ma jur waaye man as jaam laa <laughs> haza ubayduka waaw haza ubayduka indal baabi yaqra'uhu moo fi ñëw alxaaji abdul aziz si dabbaax borom bijjaaw bu rafet ba mu dem ba àgg ca mu ne gaa yi duma dem fenn a naxtu rikkaa bi inda baabika yaa sayidi sëñ Babacar comme dem nga ba ñëw man topp naa sa ginnaaw lépp lu ma am yulli naa ko ci sa ëtt yow sëñ Babacar loo ma defal ma jël anaxturika bi inda babika ya sayidi wa babuka man waafaahu yan jiw min ad-dayri booba nekk fekk dem na ca porte yàlla ba ñëw nekk wa babuka ma waafaahu abdun walam yanal bi juudika ma yarju min al fawzi wal ajri waaw dem na ba ñëw wa baabuka yow sa sa buntu yow yàlla maa waafaahu du ca boof mukk abdun jaam walam yanal ta ko mu ne parce que doo liggéeyloo koo dul fay alaaji du nee na yàlla doo liggéeyloo koo dul fay ku yàlla may jotu ñaan rek moom lay nangul yaa xam fi mu ko dul def fi mu koy def waaw yaa dul xam fan la koy def mais ku yàlla di liggéeyloo moo lay fay man razaqa du'a u lam yahrum ijaaba ku yàlla wërsëgal a ñaan moom lay nangul moo lay nangul moo tax kilifa yi liñ fi waxtaane mooy dëgg ah xol yi bu setul kurus gi duñ ci am dara moo ji man Mansuur ne njàpp yu set yeeg sangu set yu set yeeg sangoog saabu yu set yeeg baax na waaye wa tahiril xalba laabal leen xol yi nekk min xekk din ci mbañeel wa min xasadin ak kiñaan mu ne bu ma ko toppee di dem nag bayit ba day daanu te du jub misra u bi day dëng wa kullu wasfin zamimin bayna al aqraani mu ne bépp melakaan bu ñuy ŋaññ rek bàyyi ko wa kullu wasfin la ci grammaire wa kullu wasfin zamimin baynal aqraani mu a bàyyi ko tegal ci suuf ñu ne ko boo noppee ci loolu looy def alaaji Mansuur ne wa kun na nga nangoo doon ab dan jaam kese li mawlaaka ñeel sa boroom mi ne diini ci diina ji wa dunya ak ci àdduna siwaahu lu dul doon jaam yabuuru neen la du dara mun a doon jaam rek moo sàkkan lu dut loola rek neen la alaaji Mansour ne waskurhu foofu gaa yi jàng way wi alaaji suur dafa indi xadaratu juma indi wasifa indi laazim ci béyit boobu xoolal waskurhu muy mufrad yazkur ka fardan aw la daa mala in muy jamaa waaye ak lu mën a xew laa tansa rabbaka fi sirrin wal i'laanin li talxati raqaba wal ayaamu dayiqatun wa man tawaana yafutuxul xayra yaa jaani moo neex bind moo neex bind déggal lu mu li mu wax dafa ne waskurhu tuddal yàlla fardan ci kenn muy laazim kuy laazim yow kese la aw la daa malayin wala wasifa muy mbooloo wala xadratu juma waaye ak lu mën a xew alaaji Mansuur ne foo ne laa tan sa rabaka bul fàtte sa boroom mu ne waral waruwaayu yaa gaaw jëm fan ca yàlla li talxati raqaba ñu ne ko ndax lan mu ne wal ayyaamu dayiqatun fan yi dafa xat de looy waajal fii rek fan yaa ngi dem jublu ca hmm? wa man tawaanaa ku fi doye di wér di woo bi wamantawaanaa ku fi doye di fonkloo tarixa bi yëfuttuxul xayra yiw romb la di dem mu ne te doo ko dab doo ko mës a gis moo tax gaa nañ bàyyi tarixa bi xel lii laa doon waxtaanee ci juma man suur démb ndaka bu ma ñëwee tey kilifa yi ci lañuy ñuy tijjee mooy defar jikko yi gis naa ci sax ci tànt bi ñoo xam ne dañoo mel ni kuy matu mbër ndax mel waaw ndax boo duggee ci xol yi rekk wax dëgg yàlla lekk-lekk ku ñu laal dangay defaruwaat dangay defaruwaat waaw da defaruwaat mais buñ la laalee nga ne déedéet waa ji man lay gaaruwaare xam na ni nii laa mel moo tax mu ñëw di wax mais yooyu buñ ko toppee kenn du waaraate waat di alquran foo ko waxee am ku mu laal yaay yëg ni laal na la nga defaruwaat loolu rek kay wax ji mais waa ji man lay waxal dañ ko déey samay mbir nangam ak nangam man rek la bañ ni may xeeloo xam naa ni ku ma bañ la loolu day métti alxaaji mbay doon donde mbay dafa woy benn béyit sang bu tedd booba ci wolofal ne béyit boobu kuy taaliba seex yaa ko moom dafa ne rafetul doomu gaynde njaay wàcc war soom jaxasoog xar ya yàgg day indi yablu su ko xar ya yabee ci moom la du caaxaan dafa war a dellu àll nekk moo gën a weglu <laughs> dafa ne rafetul sang bi nee na ma waxat ko rafetul doomu gaynde njaay jaxasoog xar ya yàgg day indi yablu su ko xar ya yabee nekk du ci xar yi ci moom la ndax fay palaasam la bàyyi dafa war a dellu àll moo gën a weglu moo tax sang bi ne nañu sànk bu leen werante bu leen def leneen liggéey leen kurus gi parce que dégg naa ci sëriñ Habib mu sëriñ Mbay Si Mansuur nee na taaliba seex buñ la fekkee ci mbeddu ngay xuloo buñ la tooñee yaa tooñ boo tooñee yaa tooñ mu ne ndax du sa cër mu ne parce que xale bu yem ci juróomi dërëm pour ca tàngal mag mu amagul dépasse xëy di wëri ji dépasse ñu jox xale bi 10 000 mu koy xëlamtikoo mag ma sëñ Habib nee na coow lu fa am xale baa tooñ <laughs> salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu delloo sang bi kàddu